إلا من أتى الله بقلب سليم إيه الفونغ عم ديكو جرا فدي نغيره خل مسل نغيره يديني غورا فك تسي مبوك نبوكو دفينك نغدوغ تبتي دائرة الإيمان ينتي الله محمد نينا كن تيين نغمم دوير دو دوغو تي دائرة بمك lu dul nga bëggal sa mbokk jullit li nga xam ne moom nga bëggal sa bopp ceerno bari na li muy wax boo yéenee ñépp jàmm nee na donte ne ñëpp amuñu jàmm yow moom di nga am jàmm nee na misaal bi nee na bëgg nga kii mu am yére boo xam ne jamaa la waaye amul yëre jaama waaye am na désinaire nee saa yoo ko gisee da ngay ndax li nga ko yéene woon ëpp na li nga xam ne moom nga gis muy solte yàlla jox ko loolu ne da ngay kontaan ci loolu waaye yéene woo ko sax patu dàll yàlla jox ko avion saa yu avion bi riire rek dangay feebar aha kay la ilaha da ngay mujj sonal sa bopp rek nee na daal message bi mooy nañu fexe ñu fóot xol yi ceerno neena kenn ku ne am na ñett cër yi yàlla def ci yow cër yu set wécc la bu nañu moytu ñu bañ ko tilimal ku ku ku daa dox daal ba tilimal ñett yooyu neena bul bul wax ak kenn bul yedd kenn lu dul sa jëmm bopp neena sa tënk loxo bii dafa set neena lu tax tax moo tax du sax kawar sa làmmiñ kazalika lu set la du sax kawar momit neena sa deug way bi tamit neena du sax kawar neena ñet yi yii lab lol neena bo gor gor lu sa ne nga len di fot di len laabal yow ci jamm rek ngay nek waye bo len di tilimal nga desti nee na yag yàgg koy yek limuy firi bul wax lu baxul bul naan lu baaxul bul lekk lu baaxul saa yoo waxee lu baaxul wala nga lek lu baxul wala nga wax lu baxul in xamal ni tilimal nga sa làmmiñ bo ci saxé bo demul kasso rek neena da ngay febar wal iyaasu billah xolal ki tuxu ko xam da fay xëcc di mukki ah ñi def ni neena don tane demul kasso yàgg yàgg mu am tibir tibari close nee na dënn bi léeg nga dégg bu yàggee nee na bëñ daal di wadd nee na yàpp ala du lekk yàpp kay bu yàggee bët di xonk bu yàggee tànk yi yeel sew bu yàggee rek mu dee te it bu deeyee ci anam googu dafa xaru nee na kuy tuxu ku ne yaa ngi xaru nee na ndax képp koo xam ne da ngay xëcc di mukki da nga jënd ab jàngoro nee na ku jënd jàngoro nag dee nga jënd nee na ku jënd dee nag da nga xaru skay nee na kii dafa jël fetel ab fetel tiire boppam dee ci saasi wala jël buum takk baatam dee ci saa si wala jël paaka jam boppam dee ci saa si yow nag da nga jënd loo xam ne da lay rey étape par étape ba nga xëy jeex nee na koo xam ne dafay laal yamba wala yu aju yu mel noonu nee na koo koy dafa dee di doxu rek ah, xel dem na nee na kenn du am ci moom yaakaar gu rafet kenn du am ci moom kóolute te it lu mu romb buteel bi sax su ko romb daf koy yóbbu la ilaha illallah ceerno nee na loolu daal musiba la nañ ko moytu bu dee ni tamit li muy wax du noonu ba ñu xàmmee ko moom du wax dëgg nee na day mujj daal nekkaat ku ñàkk fayda ci kanamu nit ñi ndax dañuy fu mu toog wax wala mu wax wax ji ñëw di ah du di wa ko wax e wonaa du di wa ko wax da ci kaari nee na loolu nag nañu moytu wax lu amul nee na loxo noonu it nee na nit daal loo moomul bu ko laal loo moomul bu moomul bu ko laal nee na sa imam wax na ko sànq nee na même sa koj aram nee na ko jox loxo ndax moomoo ko yàlla doxal na ab baaraas sa digganteeg moom boo ko setalee moom loxo bi rek nee na mujj suturlu na waxuñu nag ngay tëb miir wala di dugal sa loxo ci poosu jàmbur di rocc loo xam ne defoo ko fa woon nee na boo ci muccee tey nee na ah fexeel nga yedd sa bopp arrêté boo arrêté wul nee na sa yaram dana mokk wala nga dem kaso seetal loolu nee na loolu ci kan lay dellu lu dul yow mi ko def nee na sa tànk yit boo bëggee setal sa tànk fooy dem na fekk fu baax la koy àndal na fekk ku baax la nee na Thierno Mouhamed gis nga bi mu ñëwee ñi mu àndal ñun ñëpp kontaan nañu ndax danañu gis ci ñoom moom Thierno Mouhamed ku baax la ñi ànd ak moom tamit ñu baax lañu ñun ñëpp am nañ ci ñoom yaakaar yu rafet waaye am na koo xam ne bu ne woon tëll léeg-léeg lu ne donte ne waxuñu. ah da ngay wax ne sama sama daan lii walla daal yow laa fa ka nee na léeg-léeg eh, da ngay ragal wala balaa ñu ñuy indil fitna nee na li ko waral mooy seen melokaan boo nekkee ku baax ba nga nekk ku baax.

waaye boo leboo doo fay loo gis lu ne nga ne yow yaa ko war a moom nee na benn kóolute amul ne bu dee da ngay commerce mun nga lebu de waaye nag boo ñëwaatee nee na ah boo leboo tey trian boo ñëwaatee ëllëg doo jot kon nag Ceerno nee na ñu góorgóorlu it ci suñuy tànk ñuy dox di ànd ak ñu baax. ñu dox yi tamit dem fu baax ñuy dox it ci lu baax lii bu dajee mooy doomu aadama nee na yii yëpp nag ñu ngi dépendre ci xolu doomu aadama bi ndax làmmiñ bi ak loxo yi ak tànk yi ay soldaar lañu seen général mooy xol bi nit nay rafet nay rafetal yéeneem nga yéene ku ne jàmm boo yéenee ñëpp jàmm nga daal di noppalu